de des finances monsieur le ministre acte trois de la décentralisation man chaque fois damay wax ne moom programme yi baax na bon littérature yu baax na c'est important de le dire que vous avez fait beaucoup d'efforts beaucoup d'efforts xoolal boo seetloo 23 virgule 464 milliards 2020 ba 20 27 virgule 564 milliards en 2024 fonds de dotation fonds d'équipement des collectivités locale et territoriales boo seetee collectivités territoriale rek am na os 30 33 virgule 6 pour cent mais est-ce que méngale nañ ko ak euh, priorité yi au niveau de chaque localité parce que boo seetee appui au pilotage du processus de mise en place de l'acte 3 mais loolu waratuñ fa def benn crédit parce que yow ñun budget programme la yow logique de gestion axée sur le résultat tey jii on est ñu ngi ci dix ñu ngi ci dixième année ci acte 3 de la DAR léegi dafa waroon jeex bi du ngi ci deuxième phase bi kon lan moo lan lan la ñuy piloté boobu tey ci la part la décentralisation loolu daf may jaaxal moo tax amul benn crédit bu ñu war a alloué tey ci pilotage parce que tey ji lu ñu waroon am boo seetee loolu moo tax vraiment dañuy gis ne ne échec bi am na boo jëlee les élus locaux dañoo waxoon dañ leen di encadré former pour que vraiment ñu mën a def seen mission comme il se doit pôle territoire yi ñoom ñoo waroon relais ñoom ñoo waroon jël relais bi maintenant pôle territoire parce que dem nañ ba mokkal xam nañ lan mooy acte trois de la décentralisation ñoom la ñu waroon bàyyi liggéey loolu amul ba tey ñu ngi au niveau central alors qu'on parle de décentralisation loolu moom moo indi vraiment incohérence yi gars yi nga xam ne ñu ngi ci jàmbat parce que boo seetloo gouvernance territoriale numérisation des euh, des documents de l'état civil mais nga def benn commune jële ko commune rurale def ko commune amul mairie boo demee dans la commune de Panal Wolof dans le département de Guinguinéo amul mairie foofu euh, état civil bi waa ji ci këram la ko yóbbu Eh, kon ça fausse tout mënoo communaliser benn bërëb moom amul fiscalité locale bu ko yóbbu amul mairie bu mu mënee defee administration nga bëgg ne da ngay réussir ak droit la décence da ngay bëgg da ngay réussir équité territoriale du mën a nekk le plan nekkal man dama gis ne nekkul parce que modernisation bi war na mën a am ci communes yi war na mën a am ci département yi mais bu fekkee ne courant amul réseau bi baaxul boo demee diggante mbadaxul ak euh, fu ñuy wax panal xelkom euh, biraan mais ñooñu du ñu am réseau mukk léegi condition yooyu naka la ci mairie yi mën a liggéeyee naka la ci président conseil départemental yi mën a liggéeyee financement du du développement territoire fiscalité locale bi mais il faut faudra d'abord ñu dem ci vers ce qu'on appelle la bonne gouvernance reddition des comptes nit ñi dañ leen di war di évaluer on peut pas ñu confier nit mairie confier ko département après noonu noonu mu jeex da ngay gis ñooñu lañuy jël di leen defaat ay député ñooñu la ñuy defaat ay ministre bon bëggoon na wax ci lotissement yi parce que bon y a beaucoup